yi wax ak yéen nag mooy professeur Mbaye Guèye de la République des valeurs nekk ci cellule des cadre ki nga xam ne mooy yor en charge l'école du parti nekk dans la cellule de comme nationale et yore cellule de comme bu Thiès. ñu ngi leen di nuy yéen ñëpp ñu ngi leen di delloo seen yéeguwaay ndax wàccuwaay moom kuñ ko jox rek da ngaa jeexal ñun nag la République de valeurs réew ngor ñoo ñëw fii di waxtaan ak askan wi di waxtaan ak opinion bi. ni leen am na ay nit ñuy wax ni réewum Ngor dafa perte la zone ouest ñu leen di yëgal ni Thiès gi ba mu nekkee Thiès ba léegi mu am ay centre témoin yu fi nekk te centre yooyu képp ku ko gañe ku ne quelque que soit la nature de l'élection mën nañ wax ni zone boobu gañe nga ko mooy centre Ali mooy centre Thierno Siré Elimane Sall mooy centre Malick kayre ak centre Sud Stade foofu nga xam ni la république des valeur réew ngor coalition boobu nga xam ni Thierno Alassane Sall moo ko jiitee gagné na fa ñëpp gagné na fa coalition bi nga xam ne moo nekk ci mouvance présidentielle bi gagné na coalition bi nga xam ni moo nekk ci opposition bi li ci gën a doy na gën ci yéeme mooy ñaar fukki at yoo xam ni nit nekk na ko fii ci Thiès Thiès waaye gëmoon ko ba ñun suñu génération bi boo dindee ñaar fukki at suñuy at ay xale lañu woon yu ndaw ñun ñëpp a ko gëmoon joxoon ko sunu lépp waaye gis ngeen li xew yàlla nag vraiment tëddul li te gis na li xew démb nag 23 janvier 2022 réewum Ngor coalition bu Thierno Alassane Sall gagné na sa Seck ci centram gagné na ko ci bureau de vote am ba Diattara bi nga xam ne moo nekkoon poulain mu nekkoon maire bëggoon nekk maire à la ville gagné nañ ko ci centre de vote am gagné nañ ko ci bureau de vote am donc ñi ngi leen di xamal ni ñi nga xam ni am nañu seen seen seen làmmiñ tey di wax ni ñoo gañe ñi ngi leen di woo à plus de raison ñu xoolaat li ñuy wax lu ne ndax réewum Ngor dafa liggéey ànd ceeg ay nit de valeur ànd ceeg ay jigéen de valeur ay xale de valeur ñëpp ñoo xam ne gis nañu changement ci Sénégal gi mën nañ ko am liggéey nañu réew mu ngor ak Thierno Alassane Sall pour ñu jéem a changer xar karamu Thiès ak xar karamu Sénégal gi. ñu leen di woo nag ci ngeen xam ni li fi am ndogalu yàlla la waaye itam ak liggéey bi nga xam ne def nañ ko ci le terrain ci Thierno Alassane Sall moo fi nekk mooy compétence boo xam ne avéré na mooy ki nga xam ne actuellement moo nekk Thiès gi te zone ouest war nañ ko ko. neewul nag ni yeneen zone yi militants yi liggéeyuñu militants yi defuñu lu ñu mën. moo taxit ni ngi leen di remercier ni ngi leen di féliciter et que ci kanam rawi lu bët ñi ngi leen di jërëjëf bu baax ñi ngi leen di jaajëf